ci marqué loo bëggoon partager avec le public loo xam ne tey soo ko doon wax ci bi surtout bi nga koy jot ci contexte bi nga ko jotee ñu fekkee ko ñu xam ko mu metti woon lool xalifa tëj nañ ko. Mm. kan moo ko war a uutu am ñeneen ñoo xam te ne postulé woon ñu ngi koy fàttali ko ca mairie de Dakar bi ñuy voté. Mm. finalement sa tour génn. Mm. noo ko dundee ak après lan nga ñu ci mën a wax. ni ma ko dundee metti na yow sax wax nga ko. parce que wax nga ne bi may jot mairie dakaar boobu mairie Dakar ci difficulté yu metti la. fa ma fekk bi ñuy wootee jour boobu. maa nga ah, toog waaw yaa ngi fa toog. <laughs> waaye circonstance yi ma amee mairie dakaar hmm. neexu ma. ah ma ni ma ko amee parce que xalifa euh, était en prison su xalifa nekkuloon en prison du jot ci mairie Dakar donc eh. circonstance yu metti yooyu ma jël ko di remplacer. koo xam ne sama càmmiñ la sama xarit sama àndandoo ma koy remplacer ci condition yooyu neexuma woon mais nag loolu la yàlla dogal donc euh, ma dund ko dund bu metti nag jël mairie bi nag mu metti mu metti mais yàlla suturaal vraiment bi ma lancé mu metti comment metti ci ci ko hmm. parce que xam nga boobu blocage yu bari amoon na mbirum politique la woon lu bari c'était difficile mënoo woon a doxal liggéey bi normalement mais ànd ak yàlla tàllal loxo ñëpp surtout conseil municipal bi yëpp ndax bi ñu ma falee loolu laa njëkk a wax hmm. je tends la main à tout le monde na ñëpp ñëw ñu ànd bokk liggéey bi ah ñu uyuma ci nag wax dëgg yàlla conseil municipal bi mais aussi ma tàllal loxo à l'état central en disant que démembrement de l'état la man il faut ma liggéey ak état te loolu moom mësuma cee deñ saa yu ma amaan occasion bariwuloon je crois que trois ou quatre fois mm. rencontré naa le chef de l'état wax ko problème mu ville mu am yoo xam ne aussi wax dëgg yàlla jàppale ma saa aussi il faut lui reconnaître donc loolu laa dund bon loo xam ne mosuma ko xalaat sama dund danaa mos a nekk un jour maire de Dakar euh, surprise la woon. première femme déjà. première femme maire de la ville de Dakar ça ça reste dans les annales de l'histoire loolu moom kenn mënatu koo dindi te keneen dootu ko am ku dul soo am Elwardini kon loolu rek jar naa sant yàlla. ginnaaw métti bi yeneen yan mool ci marqué dans l'exercice de de cette fonction. bon yi ma marqué nag bari na. Mhm. xam nga une femme à la tête de la capitale du Sénégal euh, lu am solo la lu am importance la mais. da nga doon sentir aussi que euh, dëgg la ou du dëgg góor gi bëgguñu jiite jigéen di leen di leen jiite. très souvent da nga gis ñu def yoo xam ne da ngay da ngay jaaxle nga ni waa qu'est-ce qui se passe est-ce que lii bu fi góor toogoon danañ ko ñemee def donc yooyu yëpp mais nag expérience la boo xam ne vraiment euh, baaxoon na torop mm-hmm. loo xam ne daf lay yee ci àddina daf lay won yu bari yoo xam ne mosoo ko woon xalaat mm-hmm. ah, ville de Dakar comme état la. comme état. melul ni commune yu ndaw yii de. Ah ville de Dakar c' est une institution. une grande institution et parfois même les gens vous disent l' équivalent d'un ministère ou même plus fort qu'un ministère. egg ah. naa sa niveau. ah oui. lu koy lu koy jëmmal loolu lan la lan mooy firndeel li ngay wax nii euh, maanaam institution bu mag la ci lanam ci ay orientation ci. xam nga. ville de Dakar commune la. waaye vi euh, département Dakar dafa am dix neuf communes. ville de Dakar ñëw nekk comme un coordonnateur de toutes ces communes la donc déjà pour ñu réussir liggéey dëkk bi il faut ñu nekk en collaboration avec ces différentes communes foofu la importance ville de Dakar nag ville bi aussi lu muy def hmm. il faut mu waxtaan ci ak ay collègues maire des autres communes pour qu'il y une harmonie pour mu am harmonie ci dëkk bi pour li ñuy liggéey mu mu mu mu niroo fépp daal nga xam ne bu ñu defa bu ñu liggéeyee ci dëkk bi bu ñu liggéeyee ville bi ba pare day nekk reflet wu des dix neuf communes mu nekk reflet vision dix neuf maire yëpp loolu moo tax ville de Dakar am importance am solo. mu am cohérence ci anam bi ñu bëggee Dakar mel. waaw nga lancé woon jamono jooju benn programme bu ambitieux. Mhm. bi ngay soog toog maa ngi fàttaliku discours yaa ngi wax ni woote woon nga benno mhm. mais da ne jigéen ñi maa ngi leen di woo ci ndakaaru mhm. maanaam euh, capitale vert mhm. euh, nga lancé woon ko ville propre ville propre justement xam nga biñ ma falee rek dama ne bëggatuma dégg ñuy lim dakaar ci dëkk yi gën a salte ci àddina bi ma lancé le programme Dakar ville propre ville vert ville sans plastique parce que lépp looy def nag boo nekkul ci environnement bu bu set boo ci nekkul d'abord doo am wér-gu-yaram te soo amul wér-gu-yaram doo mën a liggéey environnement dafa di loo xam ne dafa am solo ci dundoonu doomu aadama ni ñuy waxee alam bi alam bi dañ ko war a aar mm. parce que héritage la boo xam ne ndono la loo xam ne suñu doom yi ak suñu sët yi lañ koy bàyyil kon environnement dafa am solo dafa mel ni sa kër rek mm. ni ngay nettoyer sa kër pour mu set wecc euh, pour nga mën ci dund dund bu neex noonu lañ war a def ci environnement bi jëmbat ay garab dakaar amatul garab man hmm. dakaar dama ko tuddee woon ville béton parce que amatul woon ay tabax rek ngay gis le Cap Vert avant dafa hmm. bari woon ay garab Dakar gisatoo loolu donc man programme bi ma amoon mooy dakaar ville verte ville propre vraiment ñu jëmbataat garab yi defaraat dëkk bi ba mu set parce nag loolu aussi ba ma koy wax maa ngi hmm. doon xalaat événement mondiaux yi nga xam ne yëpp war na ñëw Dakar. ah war na ñëw Dakar am na benn bu jot a jàll sax. c'est vrai que benn jàll na forum de <laughs> waaye am na beneen buy ñëw en septembre sur le climat. ak euh, lane déwén incha allah am nañu euh, forum sur économie sociale et solidaire boobu itam Dakar moo ko gañe hmm. forum mondial la àddina bi yëpp ñoo fii daje. te yooyu yëpp taxawaay bi ba Dakar gañe ko da ci amoon. Ah, taxawaay ñoo ko liggéey de. ñoo ko liggéey boom mu sotti de vraiment forum bi moom forum économie sociale et solidaire moom amoon nañ 76 concurrents Dakar gañu ko. 76. wallaahi ndax expérience bu dakaar am rek ci économie sociale et solidaire. ñoo am aussi les JO les JO fàttaliku nga man maa moon jëli ji drapeau ah bi. en ah argent euh, euh, à mm. donc euh, dañ ko reporté ba deux mille vingt six mais loolu yëpp ville moo ci xaw ànd ceeg état bi. Mm. ba vraiment ñu gagné parce que euh, euh, forum yu mel noonu nag ville bi moo koy porté candidature bi looloo taxoon ville Dakar amoon ci taxawaay. oui c'est vrai que ni romb nañu forum de l'eau bëri woon na mm-hmm. coow. c'est vrai vous étiez organisatrice. loolu la mm-hmm. woon. Mm-hmm. ci bi ñu koy bi koy nas bañ ci jotee. finalement la mu doon gis nañu sax ci débat bi. nga jotoon ko tranché. Euh, xam naa du loolu nga doon ñaan moom. non maanaam ñu arrivé moment où l'état central. waaw ak ki administré jamono ji waaw xam nga xam nga seeni loo xam ne suñu réew lay xew man dama gëm ne lu mënti di am problème bu mënti am war nañ ko mën a régler ba nga xam ne ñuy jóge bitim réew duñ ko gis ah euh, li ma comprendre parce que nag duma wax loo xam ne awma détail yépp mais li ma comprendre moom le maire a dit dañ ko ne doo def discours looloo tax moom itam mu def un forum à côté. parallèle waaye. man buñ ma ne doo def discours itam mm. damay ñëw. Ah. damay ñëw toog su ma ñëwee toog sama naataango yi jógee bitim réew yépp ñoom danañ gis ne joxuñ ma ma jox discours loolu doy na parce que nag partenariat yam fa nar a nuyeeg nit ñi c'est vrai que daf nag foromam am na ñëw mais mm. ñëpp ñëwuñ mm. am na ñoom recevoir ville de Dakar mais am na ñoo xam ne jotuñoo ñëw mu recevoir leen su fekkee ne j'ai bien compris sax moom gisul ba léegi la président du forum mondial de l'eau te waroon naa mën a toog ak moom waxtaan ak moom man daal hmm. bu ma laajoon dama ko naan demal toog demal nga toog fekkee même sooy def sa forum à côté sax demal ci ouverture bi nga fekkee nit ñëpp gis na le maire de Dakar est là bon mais on on tourne la page xëy na beneen bu ñëwee danañ danañ fexe wax